gis nga de bàyyi kooku bàyyi faal la bàyyi faal bu jonwaar borom kurus gaa ngi ni <laughs> bàyyi faal bu jonwaar moo génn noonu feggoog sëriñ fallu faal ñu ngi dugg de ñu ngi dugg de waa kër sëñ maam Cheikh Anta borom gaawaan ñu ngi dugg de <laughs> ñu ngi dugg de gis ngeen buntu kër Siteu buntu kër maamam aussi ñuy jégalu buntu maamam gis nga ñu nga buntu kër maamam Mayiga